Et voilà, bienvenue au Parc des Princes de la 2STV, la télévision autrement. Euh, je viens à peine de me réveiller parce que ici désormais c'est ma chambre. Euh, dinaa leen ko mos a wan nag ci ay bés ndaxte dama ko jéem a aménager wuti sama double lit bu baax a baax a baax a baax a baax boo xam ne dama ko tegee à côté. lu ne ngi ci biir en tout cas maa ngi leen di nuyu amis chers téléspectateurs di leen jaajëfal itam euh, les sentiments que je ressens quand je suis en face de vous euh, à chaque fois damay wax naan du ma ko mën di di di di di gérer daal ndaxte sama xol day sedd tarkal la. du ma mën lu dul di jàkkaarloog yéen rek di leen nuyu euh, di leen jox également seen wàccuwaay yéen ñi nga xamante ni yéen a nuy seetaan partout au Sénégal et dans le monde maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal itam di leen jox seen wàccuwaay saa su ne nii rek lay demee 11 heures de quelques minutes histoire de détendre un petit peu l'atmosphère amis chers téléspectateurs Kheucha est là euh, pour les célibataires ah sama mbokk yi nga xamante ni ñoom itam à chaque fois rek 11 heures bu jotee yi euh, partout ni maag yéen a yem man pain toolaan dëkkee na ma ni yéen kase ngeen dëkkee surtout Ibayande maa ngi koy nuyu bu baax baax baax di ko siyaare di leen nuyu yéen également ñi nga xamante ni yéen toog seen kër doon xaar waxtu wi jot na yokkal sa télé ca kaw aj ka ma ñëw béggal la itam indi la ambiance indi la spectacle fii mooy Parc des Princes Parc des Princes nag buñ partout au Sénégal et dans le monde maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen àndandoo ak ñun la 2STV la télévision autrement la première du Sénégal. Mesdames, Messieurs, mes chers téléspectateurs, quel plaisir d'être avec vous. Mes amis qui se trouvent au niveau de Gambia, Gambians people, we love you, we love you, we love you so much. And I just say you thanks for uh, for for coming, thanks all uh, for Gambians people. ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax baax di leen siyaat itam mbokk yi nii rek lay demee saa ne histoire encore de détendre l'atmosphère di ngeen fi gis benn jeune boo xamante ni c'est une jeune fille euh, comme j'ai l'habitude de le dire elle la toile ñuy wan ay moom itam mi ngi ñuy way way boo wan way woo xamante ni ci baat bi da koy jëlee waaye bu wayee ba yëkkati baat bi nga ne kii xanaa mag la tarkal la fi mu jaara sori te di ngeen ko découvrir je veux pas dire son nom man xam ma dama bëgg ay surprise di leen ko dencal ak ñoom seen alors pour euh, continuer l'ambiance ce soir dama leen di indil loo xamante ni comme a chaque fois rek damay indi Edmo Flow mu waxal nu gars yi que ñun ñoo fi ne bu fekkee ni si calé à la ambiance total te ne dama nar a ree ndax sama yaay nee ma xëcaa del ma reewal gars yi ree kon nag tey euh, dinaa reetaan ba seen xol sedd bu fekkee ni Sey Kale Grégoire mën nga ma indil waxal ma kee ñu waxa ni ñoo nekk. sant si noo tudd. di xaasu. bëgg ay dixaa ay xëcaa ay max ay boos yooyu noonu tur yooyu la moo tax ñun ñu bëgg ko. Ah, dafa fën. waaw dafa ah, fekk. xaw a doy waar nag fooy wootee ngi Ngexoox. oui. dégg naa fu neex la nag campement de Ngexoox dégg naa fu neex la. moo ci dara kañ fay invite nag. da kañ kañ kañ kañ. non léegi rek. yàggatul. waaw. loolu dinaa ko kontaane de ayca kan nga koy may. oh là dafa mel ni dem na maa ngi koy nuyu di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci campement Ngexoox. moom aussi ci 88 628 14 13 ba tey mën ngeen participer àndandoo ak ñun mbokk yi di leen euh, fàttali di leen yéen a ci seen émission 11 13 histoire de détendre encore l'atmosphère ñëpp kopp ak euh, xamante ni yaa ngi ni seetaan partout au Sénégal et dans le monde da nga ciy sa bopp ndaxte sentiment yi lay indil day day day mujj troubler sa bopp daal ndaxte dama lay indil ambiance indil la fën indil la xale yoo xamante ni également doonoo xew ci jamono bokk na ci ndaanaan bi nga xamante ni tey dinaa ko dalal euh, mi ngi ci yoon wi wala yegg si na loolu di ngeen ci xam dara ay ca 88 628 14 13 mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay nuyu. maa ngi ziar. Fall maa ngi ziar bu wér waay. dëgg jàmm waaw mais <laughs> naka mu nag. sant Serigne Touba. tur bi. Mamor Gueye. Mamor Gueye ngi am taw fex ah. plateau bi naaj non mais fii fii fii fii xam fii lu mu tudd. ah. fi mooy parc des princes. parc Saint-Dois. fi mooy parc des de kanam gi nii rek la wan yow. non deux moom yow tamit yow tamit ñun kafunu. parc <laughs> ni ko kafunu. ñëpp jaama. Ah. waaw mais sant ñi ngi baax bu baax de. maa ngi lay jaar de. waaw maa ngi delloo jaar fan ngay wootee yow. moom maa ngi yaa ngi Mbacke. maa ngi leen di char di char waa Mbacke yëpp. mais baa ngi koy baa yaa ngi koy yëg émission bi. maa ngi koy yëg nice. mi ngi naay si yow. oui. ajal say tànk rek yow ma ñëw dugal la ci yu garaaw tamit. xool baa ngi féex. waaw. ayca maa ngi koy siyaare bu baax kan nga koy may. non maa koy may sama waa rek xam man villageois la. kan si. maa ngi koy waa rek xam man villageois ñun ñëpp ay villageois la nag génnal ci wax jooju. gën xaa xamoo ñun kaw kaw yi kenn du laal. waaw. <laughs> ana kanu laaloon <laughs> damay tooñ. damay tooñ damay tooñ wéyalal ma xool. ay jëm ngi noonu 88 628 14 13 yéen ñi nga xamante ni bëgg ngeen participer ci émission bi nii rek lay demee ñun kaw kaw yi kenn duñu laal xam nga man samay maam pay lan dëkk maa ngi leen di nuyu côté Paal euh, di nuyu ñoom Fat Diaw ñoom Baye Mor Seck ah Ngari Seck Ngari Sall plutôt di nuyu Makhtar Sall également ñoom Ndiaga ñoom ñëpp ñoom ñëpp samay mbokk lañu ñun kaw kaw yi dañoo bëri doole nag ah maa ngi leen di charré bu baax a baax a baax 88 628 14 13 ngeen mën di participer waaye itam Grégoire xam nga ban la Papa Ndiaye ay ayca dafa mel ne am na ku nekk ci ligne bi ba tey mën nañu wéy nuyuwanteeg moom salaamaaleykum. maaleykum soxna si noo def. ça va. alhamdulilah da ngaa calme de nu mu demee noonu. ah yooxul ma xool dama bëgg nga yooxu ci téléphone ma xool sa baat nu mu toll. dama nelawoon tax. da nga. dama nelawoon. da doon nelaw. Mhm. <laughs> mais yaa ngi ci jàmm. ça va looy yëg jamono jii nga toll nii. ah bëgg rek. yaa ngi kontaan. fooy wootee. Eh. Podor. fooy wootee. Podor. yaa ngi ba Podor. Uh-huh. tur bi naka la. Kumba Jaar. mais nu di dundee couvre-feu bi bu 23h jotee nga war a dugg sa kër ah war a daw rek dugg sa kër dugg sa néeg nekk ci nekk. soof nii rek. Ah? soof nii rek. daf leen soof. mooy mais ñaanal yàlla mu gaaw a jeex rek. waaw ah. xam nga bu jeexee boobaa dootula soof. Uh-huh. ndaxte feebar bi moom xam naa ne ump umpalewu ni mu def ci àddina bi yëpp. waaw muñ rek. j'ai tendance à dire que le monde a changé de visage quoi. Mhm. ayca kan nga koy may. Hmm, may naa ko waa Sénégal yëpp. waa Sénégal gi yëpp. waaw. Mhm. ah boobu boo ko mayee waa Sénégal de kenn desatul. ayca <laughs> loo bëgg yow. ah. ban son nga bëgg. laa bu war a invité Samposi. ma may ma invité kan. Samposi. Samposi. waaw. yéen booy yéen dafa mel ne nag ba lu mu tuf bi génnee ba tey da ngeen bëgg Samba Peuzzi yéen. ah man fan sam yàgg naa. yow ñaataat nga am. Mm. ñaataat nga am. j'ai 19 ans. ah dix t'as 19 ans. Mm-hmm. ah tu es devenu majeur mais xale yi 2000 yi dañ naan yéen da ngeen doy waar génération 2000 yi. Mm. da ngeen doy waar doo dégg loolu gars yi leen ko wax. déedéet. ah ñu ngi koy wax nag ah yéen ay génération 2.0. <laughs> da ngeen doy waar de yow xam nga lool ah, mais yaa ngi baax rek. waaw ah. mais kontaan naa de mayel dédicace ku la neex jox ko ku la neex. Hmm, may naa ko ñëpp rek. ñëpp ñooñu sama yaay. sa yaay kan. sama mhm. hmm, mhm. ñoom ñëpp may naa ñoom ñëpp daal jox nga leen ko. ak jub. man nag doo ko may. waaw jëlal. merci beaucoup yaay naa dégg nga. moom daa baax ndeysaan borom Podor maa ngi lay Podor dëkk bu neex ah maa ngi koy nuyu moom itam di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo foofu nga xamante ni moo di ca Podor euh, c'est toujours comme ça et puis euh, nii rek lañ koy defee ak yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan partout au Sénégal di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen fàttali itam yéen a ngi seen biir émission 11 13 11 13 nag euh, gis ngeen ni mu tàmbalee tàmbalee ci anam yu rafet yoo xamante ni Sénégalais dañu ñëw rek may leen benn plateau boo xamante ni dafa doy waar plateau boo xamante ni yéen ñëpp koy gis kontaan yéen ñëpp koy gis seen bopp itam maa ngi leen di xaare bu baax a baax a baax toujours ñu continuer ak ambiance bi Grégoire bu fekkee ni am na luy ruus ci suuf rek mën nga ko tegal téléspectateurs yi ñoom itam ñuy enjoy ñëpp ñu nekk ci euh, sunuy plateforme maa ngi leen nuyu eh, maa ngi ñëw ci yéen léegi léegi ci ko nag ko daggee foofoo neex dinaa ko continuer xam naa ni seen yaram tàng na te ambiance laa leen di bëgg a jox saa su euh, ci 88 628 14 rogalaan noonu ci suuf kaa ñu mbas ko mbasal ma ko amul dugg dugg lu tax amul lambar lambar takk der yaa ngi ñëw demal toog sa kër man du ma bokk asaba jaay du ma fu set bu ñu bokk la set na ku ne toog amul dugg dugg amul lambar lambar takk der yaa ngi ñëw beaucoup Papa Ndiaye Tapet euh, merci beaucoup également à da euh, ki ñi nga xamante ni euh, ñoo bokk ci way wile bare nañu nag ngéwal gi gis nañ leen l'autre fois ñoom ñëpp ñu génn ah, def seen mobilisation bu doy waar génn ni dañuy marché nag <laughs> waaye Sénégal a neex te maa leen bëgg dama bëgg ngéwal ndaxte ñoom nee naan ma xëcca boo nuy tagg nii suñu xool day sedd sedd sedd goo xamante ni bëri leew ma ci nag ñu ma ci mën ñu bari mais am na ñoo xamante ni bu ma leen cofee rek seen xool day daal di bég maa ngi di xaare bu baax baax a baax di leen nuyu itam li ngeen di jàmbat yàlla na borom saafara ko ci kàttanu yàlla mbas mi jóge fi euh, ba ku ci nekk dellu ci li nga nekkoon ndax loolu la leen di ñaanal également maa ngi leen di xaare bu baax a baax képp kuy géwal ak doomu géwal maa ngi lay bëggee alors dafa am benn bande annonce boo xamante ni man maa ko prévoir na dem daal dama toog di seytaan tele bi rek sama xol si sedd yow ma ne mais lan lan lii lii may gis nii dëgg la am du dëgg donc foofu vous montrer que c'est la vérité y série boo xamante ni euh, dafa ñëw ci kër gi gana si te série bi fii lay daw du yàgg dara leen ngeen gis ko alors man j'ai j'ai Lamp que man bande annonce bi foog ma tekk suba euh, ci 11 13 donc bu fekkee ni euh, c'est toujours calé à la régie série boobu nga xamante ni série bu mag la defe naa ni Grégoire xam nga li may wax mën nga ko rogalaan ci suuf sénégalais yi may seetaan itam gis ko euh, def ci seen xel xaar ko également pour découvrir li nga xamante ni moom la leen 2STV yi di waajal ci yenn événement yi ci yenn programme yi c'est à vous amis chers téléspectateurs Grégoire bu fekkee ni baax na série boobu noonu bu yembee rek rogalaanal mu ñëw ci suuf ma xool yow ree naa bela yow yaa ma waxoon ne danga am jabar ju baax une famille formidable mais man lan nga may doyee paate paate dangay doxaan jóge paate buy doxaan yow yaa koy gunge nar moon def ma topp ma rek sanga ma rek sanga xal ma rek topp ma yow maa joor xanaa da nga dof da nga histoire u sabre bi yow lan ngay def ni lii mooy lan tout ça coûte pas cher. ça coûte pas cher. kan ngay man sa bopp ngay nax da nga doon je suis ton mari et tu me cries pas may dégg. vous le père de Doudou Sen euh, Oui, je suis venu mettre votre fils en état d'arrestation. Eh ouais, lan moo dugg sama kër gi. Eh ouais. <laughs> bientôt sur la 2STV série Aya na ci biir kër gi alors amis chers téléspectateurs comme ni ngeen ko gisee rek toujours ñi ngi dox ci li nga xamante ni moom mooy euh, li ngeen bëgg yéen sénégalais yi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan partout sénégalais dans le monde mais également euh, yeneen ñeneen ñi nga xamante ni ñoom itam dañuy seetaan suñu suñu ay plateforme gis ngeen série boobu euh, décou di ngeen ko fi découvrir fii ci biir kër gi ndaxte dañ koo décroché indil leen ko yéen ñi ni yéen a namm ak di safarloo suñu télé bi nga ni moo di la télévision chaîne privée du Sénégal série Adja ci biir kër gi non loolu leneen la bu kenn dem fenn restez scotché sur la 2STV toujours ñu apporter leen lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko ci seen ay biir xol alors pour détendre encore et vous faire plaisir euh, damay dem nag ci rubrique yi nga xamante ni moo di les rubriques TikTok bu fekkee ni rek yemb na également ñu dox xuus ci laata mooy nuyu Adama Diouf depuis Saint-Louis du Sénégal du nuyu également Iba Yande Diallo Saint-Louis du Sénégal l'homme fort xam naa ni la ngay wàcc boo koy yembalee rek mu mais Papisco yaay sama waay <laughs> mbokkum yaay Leuz Shop man yow laa gëm maa ngi lay siyaare bu baax a baax Leuz joxoo ma TikTok yi Papisco ma ko jox ay ca Papis bu fekkee ni TikTok yi yem na rek jox ma ko ci suuf mu rogalaan ma xool ay ca ñu dem. góor gu rafet góor gu dana bari gel du maye ba pare taar ba lay jaay jaay taar lay doon sañse lay def ñëw toog nga koy financé naturellement xartu xataaya ok nice man sax ku ma nettali ma nettal la sama làmmiñ day dem gratuitement. wuy ma ñi am ngeen jëkkër mm-hmm. yéen ñaari jéeg yi na xóotu xóotaaral yaatu ba mel ne ba yàlla a ba jànd ki di sëyule ah lam ngeen noonu waxal. léegi dama la bëggoon wax dama la dama la kii. waaw looy hésité wax rek yow sama xarit nga. dama la dama la. ah xaaral kii bi réseau bi. dama la gis bëgg la sama xol fàq ci yow. ah. kii dama la kii. dama la nopp. bul waxal bul waxal. jour l'international la may jox borom Maroc moom ndeysaan tarkal la dama xaw a ragal tapet la moom nii lay doxaanee chaque jour mu binduloo ma ay texte xëca bindal ma fii joxuma lii euh, nan laa koy wax xam nga dama yàgg bind ay texte sama me rappelle euh, bi ma nekkee CICP monsieur Guèye maa ngi koy nuyoo passage moom a jàngal moom aussi euh, lépp lu ne ci moom man rek moom la maa ngi lay nuyu bu baax a baax y a un jour ma bindoon benn lettre yow jox ko sunu benn waa classe bu jigéen bu jigéen sax laa ko war a mën a jox nag <laughs> ni ma ko joxee rek tarkal la ndaw si jël feuille bi rek jox ko professeur bi professeur bi boobu moom moo doon monsieur Guèye te sama nijaay la xam nga ñoom bu buñ lay jàngal bu fekkee ni ñoom sa jar jarbaat nga ci ñoom wala nga doon doom ci ñoom tey rek nga dee parce que dañ naan euh, dañ lay bañ a faral saa yi daf ma jàpp yow par quatre ma jàpp ma dañ moo dóor bu may bëgg a dee voilà bàyyee bind li nga xamante ni moo di lettre ba suñu jonn yàlla tey bàyyi leen lettre leen tax tombeel dafa neex da ngeen am seen téléphone am seen tablette am lu leen neex moo tax da di fël falaale fu leen neex itam yéen li ngeen am bari de ñun suñu jamono dafa metti woon ayca maa ngi gis Facebook bi gars yi ngi réagir bu baax a baax ak li nga xamante ni moo di Instagram bi noonu rek lay wéyee ba tax na xam naa ne loolu cas ci yéen cas boobu lay àndandoo ak yéen dem xooli ki nga xamante ni moo di Pape Birahim mu ñëw chantel nu moom aussi il a une très belle euh, ku ne xam na ko waaye dafa mel ne am na ku nekk ci ligne bi ñu for ko ba pare doog a dem 88 628 14 13 mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. allo Kheucha. oui. ça ça va. ça va très bien alhamdulilah. ah tur bi dama danga koy leb. waaw taa man laajaguma la woon tur bi sax nga ne ma danga koy leb ay waay dooma ko jox rek waa léegi man lebalaguma la ko léegi. waaw parce que saa yow di xaar ngay toog di toog di ko xaar. 10 heures allah lii lii lii xol bu sedd la de mais mais mais mais. xale yi dañu laa bëgg trop. animateur oh. yëpp. Oh, oh là là oh là là boo may def loolu damay gaaw a jooy foog ma laaj mouchoir te bëgguma ko fi laaj bul waxaat loolu. non waxaat loolu damaa gaaw a jooy bul waxaat loolu. ay bëgg bëgg moom ay bëgg bu ci naree am moom wax dëgg yàlla da ngay gis sama yaram daw na yax des yaram daw na yax des fooy wootee. yaa <laughs> ngi ba parcel Assainies. yaa ngi ba Parcelles unité 10. unité 10 ah kon ñu loo nga dëkkee l' international ñaaxarañ loo. tous les temps. ah nga ni ko. ma ne la foo xale Fass rek. yii yéen leneen gen ñaa ñaa dem na fu ne di sama waa nga ni ko. ñun barki yàlla maa leen raw tur naka la. naa la dama ah danga ma koy lebal ah, doo ma ko wax rek. nga ni allo. oh la la oh la la ñoom neen dañ maa bëgg jooyloo nañ ma fi sax xam nga sama yaram dafa gaaw a tàng man booy wax yooyu rek damay dama dama dama sensible ci yenn yooyu boo ma ne dama laa bëgg rek sama yaay euh, mu ne dama laa bëgg ma ne ko maa boo waxee loolu damay jooy rek sama yaram nga du arrêté <laughs> ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax yéen itam yéen ñi nga xamante ni yéen nuyu seetaan bëgg rek moo am solo ci doomu aadama évidemment lii rek la ñuy def ngir bégal leen ñi nga xamante ne également yeneen ñuy seetaan de partout 88 628 cas romb na rek wala neex na rek mën nga ma ko dugalal ma may ko kooku nga xam ne mi ngi ma doon woo depuis les Parcelles Assainies waaye am na ku nekk ci ligne bi 88 628 14 13 salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw maa ngi chardé. Eh, na de salaamaaleykum. salaamaaleykum salaamaaleykum min Aliou. <laughs> naka ci loo ne. min Oui, Aliou. Aliou. Aliou. mais Ali ah, Aliou tu nous appelles d'où? Filane. ah. Filane Jéeri. Aliou Aliou sama xarit yi sax ak lay ree Aliou nànk. Euh, ah, j'ai des frissons de la chair de poule machallah euh, ah, vous voyez qu'elle est jeune sama yaay mi ngi naan ma léegi léegi xëcca mais moom elle est elle est, elle est toute belle et ravissante mais <laughs> également elle est jeune maa ngi lay nuyu di la mm. siyaare Dieyla. maa ngi lay di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay fay bu baax di nuyu képp koo xam ne yaa ngi toog sa kër di ñu seetaan. di leen jaajëfal mais loo sañ seen i jëy laa <laughs> dem nga ko yóbbu xale de. waaw Feva moo fi jaar. Feva daal moo fi jaar sàjjil ma lu am jom. ndeysaan mais da nga naturel quoi jaar ci dàll par rapport ak kanam gi pour man boo ñëwee di nga ci peinture lu ne def ci poudre yeeg make up yeeg jël ka lu ne nga def ko sa kanam gi daal lu tax defoo ci yooyu. no man nag bëgguma yooyu nag na simple rek. est-ce que du ko da ragal nga génn ñu naan la ar <laughs> gin ar gaay moo sa gin am na ñoo xam ne bu nu poudree noonu la leen di wax de. billaay li ma def gaynde loolu du ma ko nangu. <laughs> maa ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax Dieyla mm-hmm. ça fait plaisir ñu accueillir la nga xamante ni moo di ci 11 13. Mm-hmm. xale yeeg la doon ferme di bind message yi ana jëy laa ana jëy laa depuis euh, deux show ñoom itam ñu ngi la doon laajte ma bàyyi la nga yi euh, mhm. encore une fois wan leen sa cofeel ci yow waaw dama leen di nuyu di nuyu këpp koo xam ne yaa ngi bëgg a jëy laa di leen jaajëfal di leen wax que ni ñoom kenn amul seen fay te mhm. bëgg rek dafa metti mhm. waa di leen sant di leen gërëm alors euh, comme ni mu ko waxee rek ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko siyaare bu baax a baax moom Dieyla alors ça fait plaisir ñu découvrir titre bi nga xamante ni. Mhm. Euh, def na plus de six millions et quelques vues sur YouTube. Mhm. mu doon loo xamante ni est-ce que yow tu attendais à ce que euh, mu def titre mu def buzz bi ni mel sur tous les réseaux sociaux. ah man moom mel naa noo xam ne lépp lu may def dama ciy séntu avancement. dafa soof nag de. loolu la. <laughs> ayca wéyalal mais loolu la yàlla def tey jii nii. Ah. mu nekk loo xam ne yombul daal nga mm. génnee dara ñëpp bëgg ko surtout nga ñëw nekk xale ñu bëri jiitu la ci nga ñëw nit ñi bëgg ko mm. sant yàlla daal. mais est-ce que tu attendais un tel succès par rapport ak son bi bu mu génnee xale yi di ko snap di ko TikTok di ko dugal fépp ci ay plateformes euh, ci réseaux sociaux est-ce que yow succès boobu noonu ak yaa ngi ko ci doon xaar. ah oui ndax man damaa gëm sama bopp. ndeysaan. lépp lu ma def maa ngi ciy séntu loo xam ne. lu kawe sama njort. macha allah. elle nous de Sen Petit Gallé il y a pas longtemps moom itam bi mu fa nekkoon euh, doonoon benn candidate boo xamante ni gisoon nañ ko ñëpp doon wax ci période boobu que mooy jël. Euh, <laughs> trophée bi ni mel euh, lan moo la jóge jëlee foofu nga xamante ni fa nga nekkoon ci biir Prince loolu xam naa yàlla la nag. Mm. waaw. yàlla dong la. ah yàlla dong la mais talent bee ngi fii <laughs> style baa ngi fii est-ce que xale yi nekk foofu dañ laa dàq ah. ah mais da gëm sa da ngay wax quand même <laughs> foog nga wax ak man de gëm naa sama bopp nag ah. sama bopp laa xam mais ah. xaw ma keneen nag moom mais daal yaa nga fa woon nekkatoo fa waaw maa ngi fa woon nekkatoo yaa ngi sa bopp te nit ngi lay xam <laughs> macha allah ñoo ngi koy <laughs> féliciter davantage <laughs> di ko gërëm également ah, ci li nga xamante ni moom la dugg di ko def yéen ñi nga mm-hmm. xamante ni également yéen a nekk ci ligne bi mën ngeen woote ci 88 628 14 13 mën a waxtaan koo laaj itam seen ay question waaye également lépp luy suggestion si moom ndaxte mm-hmm. xale la bi mu ñëwee ci toile bi yàggul ñaata nga am Dieyla man 18 ans la am ah majeur nga léegi ci xale yi dugg ci musique ñaata at nga xanaa ah, 14 ans ba 13 ans. et boobu bébé woon nag. booy teel ngaa siiw de. ah gis nga gars yi teel <laughs> mi am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko 88 628 14 13 salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi siyaare bu baax sëñ bi. waaw ñu ngi doon maa ngi lay siyaar noo def. ñu ngi siyaar bi naka la. waaw Omar Anda. ah. Omar Anda. Omar ayca yokkal voix bi dafa mel na nga wàcce téléphone bi de. Omar Aan la Omar Aan. Omar Aan maa ngi lay siyaare bu baax. baa ngi am tawféex. macha allah. mais Omar du yëkkati baat bi tuuti. Omar. Omar. alors mën na tenté waat chance am ci 88 628 14 13 ngir mën a waxtaan ak nga xamante ni moo di sunu invité du jour di Dieyla xale boo xamante ni macha allah comme ni ko gisee ci ay commentaires man itam noonu laa ko gisee elle a une très très très très très belle voix euh, gis nañ ni euh, fan yi ñu weesu. nga def benn titre ak Pape Diouf leader de la génération consciente. loolu naka la demee aussi. waaw Pape sama grand la bu baax ak tamit manager am dafay ñëw Rotim dafay fréquenter et tout. ñu ne pourquoi pas duñ ko def feeling la daal ñu def ko noonu. nga def ko noonu rek. waaw sànneeku mais est-ce que gis na li nga def foofu. <laughs> waaw gis naa ko maay c'est pas évident de chanter avec des artistes pareils comme Pape Diouf Wally Seck. Youssou mm-hmm. Ndour et autres bi war a def ak moom duo loo doon yéeg jamono jooju. ah kontaan rek di delloo tamit di sant yàlla comme li ma ko waxee rek ndax moom référence la ci musique. tey jii bu ma demee bay featuring ak moom damay sant yàlla rek. macha allah mhm. mu doon yëg-yëg gu bari ci yow daal. billaay bu bari sax. alors lan nga nekk di dëkkmal jamono ji parce que voilà dinaa ñëwaat ci loolu. 88 628 14 13 mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw noo def yow. allo maa ngi lay nuyu di la siyaare. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm tur bi naka la. maa ngi tur bi naka la bul déglu télé bi bul déglu télé bi. maa ngi déglu sa téléphone dong Adja. ay waaw kay da ngay déglu sa téléphone nga ndax déggoo bi mën a leer yaa ngi may dégg bu baax soxna Adja. alors dafa mel ne dem na mën nga tenté waat sa chance si 88 628 14 13 pour nga mën a participer gis naa ci Instagram beeg bi. Mhm. Euh, ku ci mel ne Nikista ku ci mel ne Kaba ñoom ñi ngi ba Angleterre ñoom leneen dañ la bëgg dañu mës a bëgg sa son bi également. hello everything is okay for you. I'm good for you too. ayca 88 mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax naka la. ñoo yaa ngi rëy rek looy kontaanee nii yow. <laughs> non dégg na rek mbégteel la. ndeysaan xol sedd na ba yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. macha allah surprise bi ma la indil nii sama invité du jour noo ko yëgee ba nga gisee son bi. xanaa kontaan ci bu baax a baax. xanaa da ngay bëggante kon ci suuf di ma ko nëbb. ah <laughs> na ma ay <laughs> waa bëggante woo ñaataat nga am yow. man maa ngi am 25 ans. hey yow xam nga ni kii du voix au 25 ans arrêté li ngay defaat kon di nga ni ay yow est-ce que amoo 12 ans. ah yaa ngi ñaata at waxaat rek li nga làq ak li nga wàññi. non sérieux maa ngi am 25 ans. ah ah kon bul ni ma ay xam nga li ma la kon. fan ngay wootee. baa yaa ngi kontaan ci émission bu baax. maa ngi kontaan sa xol a ngi féex. <laughs> bu baax. yaa ngi koy yëg bu baax. maa ngi koy yëg bu baax bu allah koo koy may. maa koy may suñu waa kër yëpp. waaw. di ko may sama la saf après bu ma boo paree ma ma ma ma ma jeexali ayca. Euh, maa ngi ko naan happy birthday sister. di la ñaanal jàmm bu bëri. amiin yaa rabbi. bëgg de lu baax. ndeysaan. bëgg naa la trop. <laughs> lu mu tudd sa rakk ji. maam Diarra. maam Diarra. Uh-huh. ayca man itam maa ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire à elle. Mm-hmm. et que cette nouvelle bougie dissipe ses peines et soucis et lui apporte beaucoup de bonheur santé prospérité beaucoup de koom-koom maanaam argent daal. <laughs> merci beaucoup. xool sedd na ci yow. merci beaucoup à toi. allez ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Sébikotane également ça fait plaisir tout le temps di recevoir seen ay appels ñenn ci xale yu góor yi ñenn ci xale yu jigéen yi itam euh, ça montre que véritablement euh, jeunesse bi ñu ngi nuy suivre te loolu mooy suñu force loolu mooy suñu doole maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax très rapidement euh, Dieyla bokk na ci xale yi nga xamante ni amoon nga ñoom link ñu bokk ci seen petit gàlle est-ce que ye ngi am rapport ba waaw ñu ngi am rapport bi tey et ñoo ngi waxtaan ñoom ñëpp samay xarit lañ ñoom ñëpp laa bëgg tamit bi la gisee nga génne titre bi est-ce que ñoom tamit bëgguñu woon génn ñëw génn titre bu mel ni parce que gis naa ni euh, yenn ñi fa génne yëpp vous êtes en train de faire la buzz euh, le buzz plutôt sur toute la toile euh, bokk na ci maam jaara bu nekk mhm. London uh-huh. bokk na ci yow mi bokk na ci aussi ki nga xamante ni mooy Sourou Bébé mhm. borom Fatick moom itam gis naa ni yéen ñëpp bu ngeen defee ay titre day am ay yenn vues est-ce que du li ngeen jugee moo leen may buzz boobu boobu wala lan la. ah xanaa di dellu sant yàlla rek te ek di leen wax ñu gën a dolli liggéey bi gën ko yokku. Hmm. loolu rek laa leen di wax. alors actuellement lan moo doon euh, mbébétu ki nga xamante ni moo di laa ban salle nga war a nga nga bëgg a actuellement ci nii nga toll nii est-ce que yaa ngi prévoir ak di xalaat ni war nga mën a jouer ci yenn salle yi gars yi di jouer waaw man grand théâtre incha allah du yàgg dara <laughs> ko déclaré sax a neex la 2STV yi dégg moom grand théâtre de Dakar la bëgg ubbi way ko te xam naa ni 2S nga ciy àndal te maa koy présenté leer na loolu leneen la ci 88 628 14 13 mën ngeen ci participer ba tey euh, pour wane seen cofeel ak li nga xamante ni moom ngeen yëg ci gone gii euh, laa doon xale boo xamante ni elle n'a que mais actuellement mi ngi ravager lépp loo xamante ni rek buzz la sur toute la toile macha allah ayca <laughs> Dieyla alors très rapidement nga wax nu également projet yi fan la toll jamono ji album bi yaa ngi koy waaj ak ñoom wala. waaw Dieyla mi ngi waajal album bi mi ngi waajal ay single tamit lépp. Hmm. mi ngi studio moo ngi liggéey bu baax a baax mu ngi ci kawam daal. mais Yaas dafa doy waar de Yaas xam nga mos naa la invité fii. Uh-huh. Yaas ni ma non booy bi dafa xaw a malade quoi. est ce uh-huh. boobu doon tënk parce que Yaas bëggul bëggul lu bëggul lu ñëw rek ñëw nii. ay ca 88 628 14 mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam bi ñu ko taa. maa ngi lay charré Fall. delloo Thiam Mohamed Dia depuis Saint-Louis. ba du sama ancien classe boobu noonu Mohamed Dia te mënoon tricher. oui c'est lui. ah mais mais kii woon daa kon tricher sunu classe. bi may def CI CPC2 non kii dañ ko daan tër comme pas possible mais Mohamed noo def. la rek billaay Mohamed noo mujjee ak études yi ko mujj ba. bon bàyyi naa ko. waaw ah, di nga ko bàyyi waay maa ni nga ko jëlee woon neexul waay maa da nga tricher rek yow classe bi yëpp da daan tricher. ba pare dafa njooloon ah, ah, moom bu dee ak yow xam nga ñun dañu dañu tuuti woon nekk ñu gàtt moom nag dafa njooloon moo gënoon njool ci classe bi à l'époque bu ñu daan def ay devoir ak ñoom seen nii rek lay def di yokkeelu ba di yow di am lépp lu mu bëgg ci feuille da doy waar mais yaa ngi am jàmm maa ngi lay charré sa fait plaisir ñuy dégganteeg ñi ni mel parce que ñoom la ñu fowandoo mhm. jàngandoo ñoom depuis CI CP ba CM2 fàttewu moo ko ndeysaan nga ni ko yàgg ngaa kontaan ci man ndax fooy bu ne jox naa la ko macha allah <laughs> dama ko daan wan rek wane naa la nu ne wane naa la nu ne tarkal loolu lii rek la war nag <laughs> mais yaa ngi jàmm. sama xarit la maa ngi koy siyaare bu baax a baax Mohamed Dia moom maintenant il est am na jabar macha allah. xam naa ni man mii léegi ma takk man it ndax dañoo bokkoon classe. mais njool la nag xam moom géant yooyu da mën di def di takk ay jabar ñoom seen na bàyyi na lii rek a ko war maa ngi koy siyaare bu baax a baax ba tey mën ngeen participer euh, ci 88 628 14 13 maa ngi woon ci Yaas léegi. Ah. est-ce Yaas moo lay tënk ci yenn événement yi parce que bi ma la invité keroog ñoo woon de. non tënku ma dama feebaroon nag. ah mhm. te tey mhm. ah. la nga échec sa rakk ji de jour boobu noonu. <laughs> waa gis nga mais loolu dara amu si. dama ah. tëdd rek xaw ma lu may def ma téye téléphone bi rek mais yaa tënku ma de. Hmm. mais est-ce que tu attends euh, après li nga xamante ni moom nga def ci mbëggeel wane nga ko léegi léegi. Hmm. beneen succès bi ni mel. parce que des fois nga gis des jeunes talents yoo xamante ni bu ñu defee dara. Hmm. pour ñu defaat que c'est c'est tout un problème. day doon lu difficile loo xamante ni ñoom duñ ko mën tenir est-ce que yaa ngi xaaraat leneen. waaw comme ni mu la ko waxee rek dinaa def incha allah lu raw loolu sax. lu raw dammel lu ñëpp di dégg fu ne. ba dina tax sax ñu fàtte Lamel incha allah. macha allah dama la gis ci benn série. Mhm. xaw ma série la xaw ma film la xaw ma lu mu doon. nga ci doon woy tamit beneen voix et puis euh, ça m'a l'air de euh, ci benn film boo xamante ni c'est international. Ah, parce que gis naa ni euh, ñëpp dañ ko doon partager ay tubaab sax ñu ngi ci biir. Mhm. loolu naka nga def ba intégré ci aussi. waaw man nag. loolu dafa nekk si man. Hmm. ndax ba ma nekkee xale ba tey moom ak way laa boole. ah yow da ngay da ngay dund aar. damay dund aar noonu la est ma la la nga présenté. présenté <laughs> ma ñëwal rek ñëwal rek non da ngay dund aar dama lay bàyyi nga mu neex. ah mais kon kon présenté ma ma xool. ñëw la ñu pelloo taxawal rek bu moo may dàqal ayca nga ne da ngay dund dama koy dund depuis ba ma nekkee xale. yàgg naa def ay théâtre yu ndaw et ak di boole ko ak way. Mhm. yooyu noonu léegi un laa dem benn benn événement fekk fa Leyti Fall moom ma boolee ak waa film boobu Bois d'Ébène si laa ko defee. nga def bois de benn mhm. ma gis ni dafa am euh, benn succès bu doy man bi ma gisee image yi Instagram laa ko gisee ci laa mhm. la reconnaître ma ni waa kii du xale boobu nekkoon seen petit <laughs> xam nga yéen euh, dama leen dama leen yàgg a kutuwaaye donc fa la ñu xamante woon ba tey mhm, mu doon loo xamante ni man daf ma marqué woon euh, naka nga nga nga nga nga yëgee sentiment boobu noonu nga amoon après film boobu parce que gis nañ ni def na buzz sur la ah di ci kontaan rek nit ñi tamit kenn amul seen fay ndax yombul nga def dara nit bëgg ko chaque instant foo dugg di ko gis nit ñi di la bëggee di ko seetaan di kontaan rek. yàgg ngay génn yàgg nañ lay wane ci ay télé. Mhm. ngay def buzz yàgg nañ lay wane également ci ay télé ngay def yi ni mel. Mhm. Euh, par rapport ak yenn yi mais est-ce que ba tey yaa ngi pour poursuivre say études. waa si ba tey ñoo ngi ci études yi ndaxte yaakaar naa ni euh, fi ñu bëgg a yegg moom rek moo ñu fa mën a yeggale. Mhm. moo tax ins bi moom lañ gën a farlu que way bi et tout. yaa ngi en quelle man maa ngi def troisième. yaa ngi def troisième. Mhm. xale la lay mais Yaas jàppal booy bi de booy bi na jàng bu baax de. <laughs> foog mu jàng bu fekkee ni euh, beneen titre am bi nga xamante ni disponible na mën nañ ko may téléspectateurs yi parce que après dinaa ko may mu ne der wane boppam wane qualité voix am parce que tey dama ko bëgg bàyyi rek mu wax lu ko neex ci voix ni ñuy yëg ko bu fekkee ni rek am na lu ngeen ma kaleel moom mën ngeen nu ko wat téléspectateurs yi ayca bu fekkee ni yemb na rek. xam nga bëgg yëg moo koy fay waaye yaay sama noof laay kon nag tool bi nga war a bay bul ko bàyyi mu booy bul ma seetaan bul ma fowee dema naxtaan ka fore si di ko sóoraale ma wane la jarul ñu koy nëbbu mbëggeel bu dee dëgg wane ma ma waane la kenn du ko na bu mbëggee. macha allah macha allah gis ngeen voix xale bi man nee naa leen buy woy à chaque fois rek dama naan tekk di ko xool macha allah leen très belle voix mu doon duo ak le leader de la génération consciente Papa Diouf euh, di ko nuyu moom itam di ko charré bu baax a baax di nuyu ki nga xamante ni moo di Makhtar teel maa ngi lay charré yow itam bu baax a baax a baax di la bëggee maa ngi lay bëggee Makhtar Soubatel mu baax mi bokkum yaay participer ci émission bi joxe seen avis par rapport ak xale bi euh, yi nga xamante ni mi ngi koy génnee ak di ko dëgmal waaye da nga bëgg mbëggeel torop xanaa ngay bëggante. déedéet. way la de way. <laughs> yaa sa fi ne de <laughs> yaa xale bee ngi bëggante de <laughs> euh, manager bee fi ne xam nga xale yi buñ toogee seen ay manager lu ñuy def ci suuf rek dañ koy nëbb mais man xam naa ni yaa ngi bëggante. bëggante wu ma bëggante wu kenn. ah man de bu doon maay waa ji ngay bëgganteel instant yi dama lay baax <laughs> taxaw ci télé naan ma bëgganteewu ma la. amul moo tax. ah amul ah macha allah mi ngi ci carrière am. en tout cas on véritablement. Mm-hmm. li nga xamante ni moo di euh, lu baax ci sa carrière. Euh, ba tey dañuy rogalaan ci euh, série bi parce que mm-hmm. série bi defe naa am na solo ci yow. Mm-hmm. toogoo génnewoo single amoo am na looy waaj mais yaa ngi ci série bi ba tey. waaw maa ngi ci série bi d'ailleurs sax maa ngi joué secret de famille. ah yaa de famille maa ci tudd Mati nekk actrice principale bi. Mhm. waaw ñu ngi ci kawam daal. Mati fa euh, mi ngi mi ngi mi ngi def buzz moom itam de. waa Mati mi ngi def buzz Mati moom mooy dox. ah temps yi Mati xew. Mati xew. ana <laughs> ana Dieyla. <laughs> mi ngi kër gi tëdd. ana moom mi ngi dem. ana la lay waaj jamono ji ah Dieyla moom mi ngi waaj mi ngi ci job bi et que mi ngi liggéey bu baax a baax. Hmm. Mhm. defe naa am na loo war a génne dans deux semaines. waa du yàgg dara incha allah mais loolu lan <laughs> est que doon ci may benn affaire nii loo xam ni moom la ñuy café nii nii nii vite fait rek. Hmm. naa dimbali ma rek. bàyyi ma tënku ko rek. Ah, doo wax sax kii nii nii. waaw may ma benn acapella parce que xam naa ne téléspectateurs yi ñoom soxla nañu découvrir mm. euh, voix wu xale bi nga xamante ni euh, macha allah elle a une très belle voix vous allez le découvrir aussi euh, ci 88 628 14 participer ci émission bi waaye laata loolu may ma loolu ma xool. jaar jaaru àdduna bu mu tax ngay bàyyi sa loxo. jaar-jaaru àdduna bi ay coono la yenul yen bi yaa ko àttan sa ngëm-ngëm mooy sa kàttan xësa mooy sa doole jàngal àdduna bi mayewul dara li lay jàllale yaa koy waane yoon bi nii la jàppal teyel bul ko baay yoon bi mi la fulaak fayda bu ci taayi. oh là là elle a une très belle voix 88 628 14 13 mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ay eh, yow da sedd de xanaa da ngaa ndekkeegul. kan man. waaw. déedéet. <laughs> Ah, ah, ah, kon doo yee sa baat bi tuuti baat bu yeewoo dafa war a yeewu yee yeel ma ko ma xool. salaamaaleykum. <laughs> kontaan naa ci loolu. maaleykum salaam noo tudd ak fan ngay wootee. man maa tudd Yacine. Yacine. fan ngay wootee. man kii Véden. yaa ngi. Véden. Véden. waaw. Ah, maa ngi lay siyaare bu baax a baax looy yëg jamono ji Yaas. ah. ma lan ngay yëg jamono ji bi nga gisee Dieyla. kontaan rek. sa xol a ngi féex. lan nga bëgg mu woyal la ko est-ce ko bàyyi mu woy la moom moom moom mu woy waaw mu woy bëgg mu woy la. ok. ma Yacine yow it Yacine daa baax. bañuy xëccoo wurus man xam naa ku jël ngalam doo perte ani Yacine man de bëgg naa la dama la oui dama la dama ko bëgg. yaa si noo yaa ko joma ñaawuy naa la man bëgg naa la lool ay bilaay man woy naa la xam nga lii neex na. lii kay neex na yàlla nu yàlla baal yaa loo yëg. sa xol sedd na. ah waaw. tarkalla koo koy dédicacé. <laughs> ma ne kan nga koy dédicacé. alors Yacine dafa mel na daw na ñu ngi koy caare moom itam nee xol ba sedd na mhm. waaye am na yenn bande yoo xamante ni koy wàcc kër gi euh, Grégoire dama bëgg yenn yooyu nga xamante ni euh, war na ñëw yàggul dara mu doon ay programme yoo xamante ni 2 moo leen koy dëkkmal ñu leen koy wan saa su ne ndaxte ay programme la yoo xamante ni euh, leen accompagner tout au long de la semaine ngir gunge leen yéen ñi nga parce que chaque fois on essaie de vous montrer des choses différentes ak yenn plateau yoo xamante également ku ci nekk da koy da yëg boppam gis ngeen sama parc des princes jeunesse bi nga xamante ni père ba ma toog rek mu ne ma daggal hectare bu la neex ma toog di dagg yow di dagg ba fii ni ko doy na mu lalal ma ci tapis rouge fii laay ñëw di jël samay gan di dugal ak a génne sama néega ngoo ci ginnaaw bu ma paree falaa naan nongu dem tëdd ba suba rek ma yeewaat taal sama café ak ñoom seen dugg si Grégoire bande annonce yi nga xamante ni ñoo war a jaar ci kër gi euh, bokk na ci yi nga xamante man daf ma neex trop muy 24 heures ak ak ñoom seen waaye également Paco Jackson la ngay wàcce yàlla la 2STV Sur la DSTV. Alors Paco, c'est quoi le projet Tout se discute de nouvelle saison. tout se discute. xam nga xam dañuy dem ba bëgg a bay rek ñooñu loolu da ngay dem xool néew bi soog a dee. c'est des gens qui cherchent le pouvoir. dégg naa Baye Ndiaye yéen amatu leen xaalis da ngeen a daanu. man xam nga ni yow man saa bu ma defee ñu ne wuy sama di est ce que wér na. waa kii bu ko dal. Hmm, mbaa jàmm la. man aussi je peux dire que dañ ma sosal ay wax yoo xamante ni man xaw ma fu mu jógee. tubaab yi ñu doon teg bët te tubaab yi dañoo bëgg nguur jigéen tasaaroo ci àdduna bi yëpp. goreel goreel goreel. siit mooy mar drogue ba amatoo sago. waaw man nekk artiste nekk ku am jom doon le maire. di def suma année. parce <laughs> que économiquement. may ma ma ñëw. mais yow yaa ngi ni di manqué respect. déposé wu la président non bu ma jaxaseeg président. président <laughs> le réveil c'est brutal. non man jàppewu ma ko partage du gâteau. Eh, eh, Macky Sall nous a dit de sa propre bouche que partage du gâteau la. naan la lii du lii sa kawar lii sa kii yooyu yëpp c'est des mensonges. am na ci ñoo xam ne nii fukki at ci gannaaw. amuñu ñaar fukk tey ñu ngi ci Macky Sall bari alal lool fuñ ko jëlee. tey lan ngeen bëgg jël football bi akimoo. buñ ko akimoo nan la may ñu akimoo ko. Eh, ñoom euro lañ yoroon. Paco Jackson Paco Paco xam nga lan mooy wax Paco man dama lay wax benn affaire. tout se saison ak Adja Diallo xale pare. Tout se discute, nouvelle saison avec Adja Diallo xale. pare <laughs> Pago Jackson yàlla ta jàmm yàgg dama koo bëgg sama grand bi ku baax la moom itam maa ngi koy char bu baax a baax waaye également 24 heures ak bi nga xamante ni Adja Diallo moom itam mi ngi koy préparé dina doon événement ci biir kër gi série Adja dugg si na qui nous peut <laughs> actuellement macha allah la 2STV yi chaque jour rek ñu ngi jéem a jege askanu Sénégal ngir wan leen lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ñoo ngi leen di charré di leen kontaane bu baax a baax l'équipe technique saa su ne rek dama leen di bëggee ndaxte lu yàññi lu ne rek ñoom la gis ngeen li ngeen gis fii ba tuddee ko Parc des Princes à travers vos commentaires sur les réseaux sociaux moo tax su ma ñëwee rek damay kontaan samay caméraman lu ne la jël tarkal gis ngeen fii bàyyiwun dara daal suñu xol yëpp sedd na ci ñoom loo gis bi nga dugg see euh, salle bi clim bi fi nekk xam nga bi <laughs> <laughs> ngelaw li muy génn yaa ngi koy yëg. macha allah la ba mu ñëwee nice na salle bi. Mhm. clim bi neex na daal. fii mooy Parc des Princes. waaw noonu rek nga mën a demee ay la nii dama ñëw rek. Mhm. Euh, trois jours de cela yàggul bi bi may commencé affaire bi. perdi ma mhm. mais Richard fan nga bëgg yëf yi ma ne ko est-ce que doo ma yóbbu ci kaw. mu yóbbu ma ci kaw ni ma xoolal fii hectare bu la neex ma daggal la. ma dagg lii lépp trois jours defaral ma lii. loolu <laughs> ba mu ñëwee sax dama ne fii est-ce que ci 2S la bokk na. gis nga de xool baa ngi féex. ci rek laa daan yem. xool baa ngi féex. maa ngi kontaan. waajal nu lu garaaw nag parce que live da ñëw 2S show fii def sa live. defal loolu. Ah. Mhm. bu ma defee loolu looy def yow. loolu rek laa yàkkamti. ah loolu rek. Dieyla en live. à travers la 2S bi monde entier di la seetaan. Dieyla loolu dina doy waar de. dina yéeme torop. loolu dina fees del lan nga bëgg may téléspectateurs yi laataa ngay tàggoo. yow yaa ëmb juróom-ñeenti weer jigéen bu dul taayi waaw góor jigéen bu dul bàyyi fajar lañu yeewu di dang-dangi ñoom xamuñu lan mooy sonn bay taayee suñu yaay nga ñun yaa ñu ji lu gën yow yaay jigéen yaa ñu def lu ñu doon yaay te jigéen jigéen mooy sunu yaay moo ni tette saa su guddi jotee naan nu ayo nene <laughs> nene tuuti di nu se macha allah jigéen dafa sori ci xol ba tax na maa ngi ciy jaare nuyu sama yaay ji depuis Saint-Louis du Sénégal mhm. euh, di ko jaajëfal nogay saw meer mère su waaye Bintu Fat Saw maa ngi leen di nuyu tout la famille di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mhm. mot de la fin euh, jëy laa lak nag lan ngay wax téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom itam ñu ngi la doon seetaan waa tamit kontaan ci yow mhm. yow tamit di la remercier. ci invitation bi di kontaan bu baax a baax. di leen wax que ni képp ku bëgg solo bu baax na nga dem ci Feva moo jaar fi Toufa Chic moo jaar ci dàll yi. Mhm. di remercier waa Rock Team ñëpp. ak yaa sama manager Mia Diop bàyyiwuma kenn. macha allah Yaas itam maa koy siyaare merci beaucoup à <laughs> merci beaucoup merci l'invitation. doo xaar ñu demandoo. parce que damay dugg ah, sama néeg rek dama am lu ma lay jox di. xaar ma bu mu paree di leen rombee maa ngi leen di siyaare di leen euh, gërëm yéen ñi nga xamante ni a ngi doon seetaan la 2STV la télévision autrement merci beaucoup euh, à l'équipe technique bi nga xamante ñoo jàpp ci liggéey bi depuis 11 euh, ñu ngi àndandoo ak ñun a baax a baax a baax ngi Sandaga foofu nga xamante ni macha allah moo di cantine numéro 10 moo may jox la kosu jox ma tubéy euh, laal ma dàll dàll yi nag macha allah comme chaque fois euh, gis na ni Ibou Maket da ci jàll moom itam di moo jaajëfal euh, di ma kontaane moom nee na ma maa ngi kontaan bu baax maa ngi koy yëg ma ne c'est la 2STV et c'est la télévision autrement merci beaucoup également Iba Yande merci beaucoup Papisco je dirais pas le shop maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di ko mosunoo génn ci télé ma indil ngeen seetaan leen pour ñu may leen chance ñoom itam ñu mën gis seen bopp ci télé bi parce que ñu ngi def sur la toile merci beaucoup à tous et à toutes et rendez demain inchallah rabbi quant moi je vous donne rendez de 11 à 13 mais restez scotchés sur la 2STV parce que fii rek fi la mburu mi di xam-xamee ciao ciao à demain